waral euh, conférence bi dinañ ci développer bu ñu ci jógee euh, dinañ sant ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci komba bi di ci xeex ñii di ci xeex ci seen wàllu doole ñii di ci xeex ci seen wàllu alal ndax Olof Njaay dafa ne dompet sax sot la bokk ñooñu bu ñu paree dinañ leen jaajëfal ndax seetlu nañ ne euh, bi ñu amee victoire ba léegi amul benn kilifa bu bokk ci parti bi bu taxaw gërëm ñu doon xeex te nit dafa yellu bu doon xeex ba am ndam nga ne ko jaajëf loolu day encouragé nit dinañ da euh, dugg ci domaine bi nga xamante ni tam mooy wàllu métti métti yi nga xamante ne moo ñu métti ba tax ñu woote lii loolu tamit dinañ ci dugg suñ paree daal di tënk réunion bi mu jeex kon maa ngi jox sëñ Abdou Sylla euh, maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di nuyu tamit euh, comme ni ko sëñ Xaadim waxee rek Sëriñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di nuyu tamit sëriñ président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre waaw di sant ñi fi teew ñëpp nag ci seen taxawaay te bëgg réew mi rek ñoom ñëpp tax tey jii ñu ñëw teewe réunion bi nga xamante ne bii moom moom moom la ñuy def waaw li ëpp solo nag comme ni ko suñu xarim waxee rek parce que dafa am loo xamante ni dañ koy alerter bala muy agsi moo tax tey jii ñu woo mbooloo mépp pour waxtaan ci ak ñoom. parce que umpalewu leen ni euh, dafa am ci luñ jóge lu metti muy ab combat bu méttee méttee méttee métti te vraiment maanaam département Mbacké bi surtout ma Touba daj ci daj daj daj ci lu ne kon tey jii bu ñu commencé gis loo xamante ne bi tey jii maanaam lu nuru tradition la vraiment tey dañ koy teel a arrêté maanaam wax nit ñi fañ jëm parce que tamit ñun dafa am loo xamante ni moo ñu taxoon a jóg dañoo gëmoon réew mi ba ànd ak si na Ousmane Sonko mille 2016 di xeex ci parti bi di xeex di xeex ba dugg koso tey génn am ay jafe-jafe yu bët nii may waxee ni maa ngi takk ñaari weer bu may séddante la damay takk yeneen weer te réew mi moo ko jaral parce que ñëw ma woon tey di xeex pour ñu nome ma ñëw ma woon di xeex pour ñu jox ma xaalis li nga xamante ne bii tey moom la Ousmane Sonko doon daj nekk impo def fa 15 ans. di ñu liggéeyal tey di dénoncer loo xam ne ñun suñu intérêt la tey ba ñu xëy rajee ko ci insistis moo tax day ma ànd ak Ousmane ko tey teg sama bakkan ci réew mi ba yàlla dogal tey ma tëdd ci ko sa 200 di ko gën a santaat yàlla kon nag tey département bii nga xamante ne bii moom lañ nekk dafa am ñun fi commencé gis te ñun dañu gëm projet bi tey képp koo xam képp koo xamante ne bi nekk Touba xam ne Pastef moo insisté Touba kon tey am na loo xamante ne bu commencé am ñun bëggul bëgguñu lenn lu yàqal parti bi. moo tax tey jii ñu woote woon euh, ndaje mi pour waxtaan ak ñi nga xamante ne bi tey ñoo nekk ci département Mbacké bi surtout ma commune de Touba parce que dafa am lu ma naqari ma doon koo xeex ba dugg koso injustice boobu moom laa génnaat bi ma génnee koso moom laa commencé gis te man li ma gëm mooy man xeexuma ngir lenn man réew mee ma jaral li ma doon xeex ci régime bi tey bu ma ko commencé gis danaa ko xeex donte dama ci duggaat koso parce que man foofu foofu laa nekk kon maa ngi commencé gis lu ma metti ci département bi ak ki nga xamante ni mooy le coordonnateur lu ma naqari loo xamante ne bi injustice la parce que dafa am ñu nekk ci biir département Mbacké bi surtout ma commune de Touba doon sonn ci projet bi lu ñu daj ko ci ànd ak le coordonnateur mu leen woo guddeeg bëccëg ñu jël seen alal di ko ci def commerçant yi kenn ku ne jël sa alal di ko ci def te moom xamul ni Ousmane Sonko moo ñu ko joxoñ te ñun ku ñu Ousmane Sonko joxoñ foo joxoñ fa lañ jëm kon tey jii bu ñu àndee yow teete la jël sunu alal sunu deret ànd yow ba yàlla may ñu ndam ci projet bi kon tey jàpp naa ne ña nga xamante ne bi tey ñoo doon ànd ak yow démb ak bërki démb heure boo geesoo gis leen tey ñooñu war nga leen ndokkeel mais man tey loolu injustice laa ko jàppee parce que dama gis ni ñëpp dañ leen wan ginnaaw te man loolu duma ko nangu du ma ko nangu man du ma maral kenn ay tànkam man réew mi laa gëm kon tey bu ma gisee ñoo xamante ne bi tey nekkoon nañ ci combat bi di ci sonn tey ñu wan leen ginnaaw andi ay nit ñu bees ay nit ñoo xamante ne APR lañ bokk nga le coordonnateur di ànd ak ñoom loolu ñaaw la te dafa am loo xam ne man mënu ma ko nëbbu quoi parce moom mi nga xamante mooy le coordonnateur dama koy envoyé audio di ko wax li ma naqari diw ak diw woo leen nga waxtaan ak ñoom parce que lii ngay def nii rafetul parce que nit doo ànd ak moom ci xeex mu jël alalam sonn ci lu ne mu daj ko te lim doon def yëpp yow la ko defal parce tey jii bu ministre ñëw ci yow lay ñëw buy désert ñëw ci walla ñëw te loolu liggéey yoo ko loolu du liggéey loolu commerçant yeeg leader yi nekk ci département bi ñoo ànd dooleel ko ba ba ba ba nekk li li mu nekk tey kon ñooñu war leen a wan ginnaaw man loola ma naqari man loolu laay xeex du question soxlaalu ma ko dara parce que man parti bi Ousmane Sonko moom ma booleeg moom ni ma àndal moom nga jàppale ko te kenn ku nekk Pastef xam ne ni man li ma fa def kenn defu ko fa man maay première sën bu njëkk a taxawal mouvement jàppale Ousmane Sonko kon tey. am na loo xam ne man bu ma ko commencé gis tey loolu injustice la te man du ko dund te lu ma naqari la kon nag loolu lay alerté di ko wax nag PM président Ousmane Sonko mu teel a taxaw ci lii parce que tamit département bi ay gor ñoo fi nekk plus de mille fois foo ko gañee xam nga ne loolu du ay caaxaan Pastef gii tey jii bu doon ñoom danga Touba du gañe dara mais sympathisants yi ak ñi nga xam dañoo bëgg Ousmane Sonko tey fépp fu parti bi toll toll ñoo ñoo ko fa yóbbu kon tey dama bëgg nga xamante ne bi tey bu doon Pastef kase Pastef kase Pastef kase du ñu gagné dara mais nag Touba ñëpp a bëgg Ousmane Sonko te ñëpp ko woteel kon ñooñu war lañu leen ndokkeel te man dama gëm ni tey boo nekk ci département nekk coordinateur yow lan mooy sa rôle woote dajale waxtaan ba ñu xuloo kenn bu kii meree nga woo ko waxtaan ak moom coordinateur da yaatu dënd xam nga mais waroo wut ay ñoo xamante ne bi tey. ña nga taxaw pour pour bëgg tey ji benn benn procès bool bool la lijjantil wala tey nga nobe leen ñu lay raayal sa ginnaaw di la wax loo xam ne amut nga bàyyi seen niti démb loolu rafetul te man loolu laa gëm kon nag maa ngi alerté sama premier ministre Seydina Ousmane Sonko mu teel a wax ci lii parce que lii tamit man dafa am lu ma doon xeex te lii la mu taxaw ci parce que coordonnateur bii ma gis ni muy doxalee rafetul parce que man bu ma demee ba nga xamante ne bi tey man man man mi nga xam daf ma daan wax wax ni ma yow yaay sama conseil donte chaque fin de sax day day jar ma lay fay ndax yow mosoo maa wax sa intérêt intérêt parti bi ak lu ma jëmale kanam rek ci ci nga nekk mu def ma conseil man kon bu demee tey ba ma nawaat ginnaaw ma koy wax dëgg mu may kon fayut naar bi xoromam te ñi ma wax ni daf dafa boleke man ku mu mën a doon ci àdduna sëriñ bi ma yaakaar sax tey bu ma doon bu ma bu ma doon ànd ak moom tey jii mu jaar beneen yoon ma bàyyi ko fa waxuma laa nag koo xam ni Ousmane Sonko tax ma xam ko Ousmane Sonko moo ne ma àndal ak diw mii nga jàppale ko ma ànd ak moom parti bi tey jii bi ma duggee ci kose bi am na activité yoo xam ne dañ ko def defuñu ko parce que coono ba ma ci daan daj di dugg ci marché bi di laaj xaalis kenn ku ci am engagement bu amul kon man la ma war a def lépp def naa ko te nii may wax ni tey jii lépp lu jëmale parti bi kanam ci laa nekk lépp loo xamante ne bi tey jii mooy may ndam Seydina Ousmane Sonko ci ci lañ nekk lii nag moo ñu dajale waaw kon nag maa ngi sant mbooloo mi baax di leen gërëm. di rafetlu kàddu yu Abdou Sylla yëkkati ndax ñun yàlla dogal na. Pastef la ñu am amuñu beneen parti bu dul Pastef parti bi tey lañ ci gën a bokk tey lañ ko gën a bëgg tey lañ gën a bëgg mu dem mais nag yarkatu ginaar bu yar ginaar ba poulailler bi am virus c'est normal mu désinfecté ko raxas ko ba mu set pour jàngoro ji mën fa jóge pour bu yaraatee ginaar ginaar yi mën a développé foofu la parti bi toll. dafa am ay virus am ay anomalie yu am ci parti bi yoo xamante ni ñu bari bi ñu yëgee ne damay def conférence bi dañ ma doon woo naan ma bàyyil conférence bi parce que lii mën na yàq parti beeg mën na daaneel gouvernement déedéet su fekkee dafa yàq parti bi kon parti bi sosuloon ci dëgg ndax ñun ci dëgg lañuy dox dëgg googu nañ ànd ak Ousmane Sonko. Ousmane Sonko du suñu sëriñ man moom ku dul sëriñ Tuubaa gëwuma la mais dafa am ay critères yu tax ñu ànd ak moom waaw ah, critères yooyu bokk na si rupture rupture xam naa ba am na ci ñu fi nekk ñoo xamante ne xamuñu lu may wax mais rupture mooy lu ñàkk. comme par exemple ceeb nga koy jënd ba mu yàgg ñu ne ceeb dafa nekk en rupture dafa manqué rupture nag mooy njuuj njaaj gi fi Macky sàll nekkee woon ak ay ñoñom ak waa APR yi ak i ministère mi ak i DGM loolu la usmaan Ousmane ko doon xeex pour mu jóge fi xeex boobu jaral ko mu naroon cee ñàkk bakkanam ay bakkani ndaw dee ci ñoo xamante ne bu dee wàllu mbokkoo bokkuñoo soo Sonko deret bokkuñu moom moom sax dëkk. mais patriotisme ak bëgg seen réew ak bañ ku noot waa askan wi moo tax ñu jël seen bakkan joxe ko ñooñu kenn waru leen fàtte ku leen fàtte rek trahir nga askan wi moo tax le but du conférence ñu bind ci ginnaaw non à la trahison man de sama bopp laa xam du ma mës a trahir askan wi ci li may dund nii du alal moo ma ko jaral du lenn moom ma ko jaral du postu walla lenn parce que yàlla suturaal na ma ba ma juddoo ba léegi lépp lu may dugal sama biir di ko jox sama njaboot lu ma ñàq la kenn mësuma dimbalee dara falaa nekk gëm sama bopp kon nag bëgg leneen wala bëgg pos du tax may gis dëgg ci parti bi war ko wax te waxuma ko te parti bi xaaj xaajaatu parti bi xajuñ ci salle bi te ñu bëri daf leen a metti mais lan moo tax ñu daw bañ bañ a ñëw parce que ragal nañ bu ñu fi feeñee daf leen yàqal dara ëllëg man nag wax dëgg gi dañ bañ ma fal dara wala ma bañ ba am wala ma bañ a am benn opportunité ci parti bi wax dëgg gi te bañ koo doon moom mu gënal di di dund ak ñoom ci ay kàcc te am di am ay post du ma ko def parce que proposition bu nekk dégg naa ko fii bi ñuy préparer campagne yi li may wax nii nag maa ngi koy waxee ñëpp di ma seetaan parce que du ma wax loo xamante ne comme li mbëri di wax ne jamono ji kuy daanu da nga xam ne <laughs> da daanu <laughs> da nga góorgóorlu bañ a daanu ndax boo daanoo samedi li nga daanu dimanche daanu daanu la ni daan yenn parce que réseaux sociaux yaa ngi fi moo tax li may wax tam bëgg lu neex kenn wala bëgg lu daaneel kenn du ma fen déedéet dëgg laay wax Touba gi maa ngi fi bëgg a yàgg Dakar laa juddoo fa laa màggee fa laa yoroo daan doole moom indi fii sama euh, moom indi Touba ba ma far dëkk fi kon lu may wax lu nekk ci dëgg laa koy teg kenn nekkul sama ginnaaw kenn financé wu ma opposant opposant politique yi fi nekk nañ lem seen gente toog te xam ne seen seen wàll wéy na man kenn mënumaa jënd pour dama leen avertir balaa ñoo jàpp ne parce que système politique bi dafa bëri parce que mun ngay wax gars jàpp ne dafa am opposant yu nekk sa ginnaaw pour pouse la man kenn mënuma jënd soxlawuma dërëmu kenn su ma bëggoon xaalis du ma ànd ak Ousmane Sonko parce que proposé nañ ma xaalis du ma nëbb lim bi 30 millions jox nañ ma ko ak oto pour ma ànd ak gaay ma bañ xam nga lu ma ñor réew mi parce que nit il faut nga nangoo sacrifier pour gagner dara gis nga tubaab bi foofu la ñu rawee tubaab bi dañuy da ngay gis ku bind benn projet mais du pour moom ay sëtam ñoo ci ñoo ciy dund moo tax seen dëkk dafa am résultat fii nag xam nga lu ñu xam. jooni jooni esprit boobu il faut mu deñ gëm-gëm gëm-gëm yooyu noonu noonu moo moo moo ñu boole Ousmane Sonko foofu dama fay alerter rek pour xamal ne nit ñi kenn jënduma kenn nekkul sama ginnaaw li ma waxoon ci pulaay bi rek laay waxaat dafa am virus yu fi nekk am ay kaymaa yu fi nekk yoo xamante ne ñoo doon ànd ak Macky Sall di def des sale boulot ba ci kii toog nii. ay booy Antoine Diome ñoo nekk fii Touba di détecter nit ñi jàppal ki jàppal ki ñu jàpp di tëj di def affaire esclavage sonal nit ñi kenn ñemu tax dëgg ñun nag loolu lañuy xeex ànd ak Sonko ba yàlla may ñu ndam mais bi bi ñu yàlla mayee ndam bu ñu tax a naagu ah nit kat yaakaar naa la nga daan la nga doon def ba am ci dam bu ko soppi ñun Ousmane sonkoo gàcce ngalaam li mu war a def lépp def na ko mais lantinoor du tey diw Wolof Njaay loolu la wax lantinoor du tey diw mais dañoo gis ci parti bi dëgg gi tax ñu àndoon ak Ousmane Sonko ba mu jaral ñu sunu liggéey di ci yàqu am ay kilifa yu ñu ci bàyyi sunu liggéey yàqu ci des fois gars yi woo ñu di ñu chantage ñu gis ne loolu lépp gars yi dañ ko bugg a teg ci suuf te kenn du seetaan sa alal muy yàqu Pastef ñu ñoo ko liggéey kenn mënuñoo génne ci parti bi nag parti bi kenn du kenn donnewu ko de du ndonneelu kenn du moomalu kenn Ousmane ko sax moom lu leer la wax nee na ma parti parti bi sax moom moom ma ko ça appartient à tous les Sénégalais ça appartient à tous les Africains kon loolu dama yaakaar ne nit ñi dañuy ànd ak moom te dégguñu ko problème bi nekk fii Touba nag ñun moom dañ koy dénoncer dañ koy wax amul fii la situation bi toll amul nangam ak nangam dañ koy wax parce que il est l'heure olof dafa ne xeddu ko balaa ngaa lakkale du ñu bàyyi ba affaire yi passé ñu perte suñu base politique ba noppi ne fi di wax Touba coordination bu normal amu fi. coordination bu baax amu fi respecté wuñu militants yi te àdduna li tubaab da di wax naan le respect est réciproque sa doom sax boo bëggee mu respecté la da koy respecté mais ñun duñu nangu kenn kuy ànd ak ñun ci affaire royale nanguwuñ ko te duñ ko mës a nangu nekk benn genre buur gars yi topp sa ginnaaw di la wax lu la neex duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg injustice ak rupture lañu wax non à la trahison dafa am loo xam ne boo ko dundee yaa ngi trahir sa askan yaa ngi trahir ñi nga àndal te loolu duñ ko mës a nangu euh, léegi li nga xamante ne ndax saxam dañuy tënk te am na ci yoo xamante ne buñ koy def duñ ko defee fii ci dëkk bi ndax bu dee yëngal ak yëngal ak ak ak ak mu yëngu rek xam nañ ni ñu koy defee ndax dañoo judd ci koñ koñ yu mel noonu waaye taxul tam. ñu dérapé benn yoon ñu def lu ñu war a def dañoo nekk ci suñuy droit rek waaw li ñu ciy tegaat mooy euh, nit war fàtte nitu démbam te loolu am na ci parti ña fi nekkoon di xeex démb tey dañ leen a ginnaawal lijjanteetuñu leen jàpp nañ ne combat bi yépp ñoom la combat bi du ñoom de ñëpp ci participer ba ñëpp am ndam te dafa am loo xamante ne politiciens yu njëkk yi loolu lañu fi tegoon ba Sénégal yëpp gëm loolu mooy politique oto bu yàqu la bu nit ñu duggee buñ ñu poussé mu tàkk rek day dem yoonam loolu la ñëpp gëm te loolu fi amoon Ousmane Sonko ñëw xeex loolu kon nag nit ñi bëgg fee indiwaat. duñ ko nangu duñu seetaan liy yàq parti bi duñ ko seetaan ndax ñun ñuy toog kenn ku ci nekk ak daay boo amoon sa kër balaa ngaa yuuxu naan nit ñi way walloo boo gisee ndox danga ko ciy sotti foofu lañ toll duñ bàyyi affaire bi mu dem dañuy wax dëgg gi ñu mere ñu après ñu àndaat mais duñ fi nekk di raayal kenn ginnaaw te li ma gën a metti ci parti bii di Pastef muy parti bi ma nekk fii ci Touba euh, buñ ci indiwul ay saafara dina yàq lu bari te man li may wax postu taxul may wax dama bëgg nit ñi xam ko man je gagne ma maa ngi sant yàlla maa ngi sant Serigne Touba bu wér maa ngi lekk maa ngi naan oto mu bëgg dawal maa ngi koy dawal kon kenn du tax kenn du tax may fen du ma ko nangu. waaw euh, bu ñu ko saafarawul dina yàq lu bari àdduna nag olof dafa am lu mu wax nee nañ loxo buy tàcc bu demee ba yoru xeer am na lu ko waral foofu nag àgguñ fa mais lii raam ci ñag bi la jëm coordination bi na ko teg ci yoon coordonné ñu mu war a coordonné ñi ñu war a jox cër ñu jox leen cër ñu ànd liggéey ndax tey buñ demee ba suñuy noonu démb nga xamante ne ñoo ñu doon xeex tey son excellence ku mel ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye buy dugg ci dëkk bi duñ ko yëg PM la premier ministre buy dugg ci dëkk bi duñ ko yëg. DG yi bu ñu fiy dëgg dugg duñ ko yëg ak ministre yi bu ñu dugg duñ ko yëg lu dul waa APR yi nga xamante ne ñoo jàkkaarloo ñun di xeex ñoo ñu ëpp information ci parti bi ñoo ñu ëpp accès ci le président ak Ousmane Sonko li may wax ñi fi toog xam nañ ko te ñi nekk ci parti bi xam nañ ko loolu fan la tege sëñ bi ñun xëccoowuñu ay poste xëccoowuñu ay opportunité mais nañ ñu jox suñu cër nañ ñu jox sunu cër àdduna dafa mel ne géej ci géej laa koy misaal géej bu fekkee da ngaa bëgg naan naan ndox mi ci géej gi lekk jën yi lekk bato yi boo metu sa biir du ko fekke loolu laa gis ci Pastef bu Tuubaa dañoo bëgg jël lépp daf ko sac au ñooy ñooy def lépp ñooy buur ñooy bumi te politique doxewut noonu te loolu taxul ñu am baas politik te base politique bi mi ngi yàqu te tubaab dafa am lu mu wax il ne faut jamais affaiblir la base te suñu base politique ñi ngi koy ñàkk parce que amul coordination bu baax coordination bi nit mënta nekk au four et au moulin loolu mënut a nekk c'est impossible àdduna amul ku yàlla bind nga mën a nekk fépp ku tedd ki ñu yaakaar sax danaan jékki-jékki tam benn dëkk wala dëkk temps mu seexal fa kenn toftal ko mbooloo damar feneen seexal fa kenn toftal ko mbooloo toftal ko mbooloo yooyu yëpp ay enseignement la yu sëriñ bi daan daf nit bu ñu la mbir da ngay yaatal koñ bu nekk nga am koo fa teg kooku téye base politique bi foofu di doxal normal lu waa koñ bi di jooy mu xam ko lu metti waa koñ bi mu xam ko mais koo xamante ne jot ko téléphone sax mënoo ko man le coordonnateur jox na ma trois rendez yoo xamante ne respecté wu ko te mi may dégg du ko weddi te lii laa bëggoon ñu toog waxtaan ci côté bu nekk kar naa ko ci pour ñu waxtaan te mën ta sotti man nag du ma dem fenn di ràng man du ma bëgg kenn si suis libre je travaille je gagne vie sama dignité ak sama ngor kenn du tax ma jaay ko du ma dem ci genn kër di lambar lambari wala ma yem audience Dakar dam toog di bàyyi sama liggéey déedéet ni mu ñàkkee temps noonu laa ñàkkee temps man dama am métier de néew ma ci ñi ñi nekk di di dundee parti bi te dunduluñu parti bi man dama am am na ñoo xamante ne parti bi amuñu liggéey dafuñu dara goruñu yettuñu te ñu ngi dawal oto di tabax kër yu rafet loolu est-ce que rupture am na est-ce que rupture am na. bi Ousmane sonkoo taxoon mu xeex ba ñu bëgg ko rey làmmiñ bu waxul dëgg fen lay wax man nag am naa plein droit wax li ma war a wax kenn du ma gêné kenn du ma gêné mais nit ki su fekkee ne erreur dafa am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp. te danaa daan def ay njuumte sunu borom yebal jibril wala saaba di wax ak moom ana kan ëpp maqaam yonent bi nañ wàcce niveau bi te xam ne ay nit lañ mënuñu weesu lu dul nit dañuy def erreur di juum bu ñu juumee nañ toog waxtaan mais toggoogu mënoo ko am mënoo wax téléphone yaa ngi dégg mënoo gisante ak nit ki la preuve en est que la dernier jour bi nga xamante ne ci dañ lañu def investiture yi euh, ci ci ci suñu chaise bi ñëwut teewut te moom moo moo woo nit ñi dam di def émission Dakar daa mën a def lu ëpp farata ñëwul ci ci li nga xamante ne moo ko far faloon yooyu yëpp pour kàr ko la pour waxtaan ak moom amu ci benn solution. fii ci Touba Pastef bu Touba boo gisee mu am doole ba taxaw ba heure bii dafa am ñu ci jàpp des grande têtes ñi nga xamante ne seen alal fekkewu ko seen dara fekkewu ko te dara taxuloon ñu koy def ngirul patriotisme ak bëgg seen réew. ak bëgg régime Macky Sall bi fi nekkoon di yàq jóge fi moo taxu ñu jël seen alal di ci def sacrifier ci côté bu nekk ñu mel ne safaa fay am di moom mention spéciale lañ koy wax ci ci projet bi parce que am di Amdi safaa fay voiture personnelle bi nga xamante ne moom la yor di ko dawal moom la ma joxoon moom man moom laa campagne muy xaama bi ngeen daan gis ci campagne yi mooy pick-up bu weex bi nga xamante ne même bi Diomaye di ñëw Mbàkke ci lañ sécurité bi nekkoon am di moomu amul lu mu dajul ci parti bi amul lu mu dajul ci projet bi ba li ëpp ci liggéey bi moom la ñu koy jaajëfal bu baax ndax mun naa ne parti bi daanaka lu ci ëpp ci këram lañ koy lañ ko doon nasee di ko noccee foofu mu daan jël alalam di ci def ba ci permanence bi nga xamante ne mooy permanence Pastef bi ne Mbàkke am di moo ko fay di ko fay moo jox caution bi moo ko fay ba ni Seex Coro nekkee député mu ne ko jox naa la ndigal léegi fi mu toll nii mën ngay fay sagam nekk nga député deuxièmement sarax yu metti yi bi Ousmane Sonko di nekk ci biir kaso bi parti bi jaaxle woon patriote yëpp jaaxle gars li ñu yoroon lépp dépassé nañ ko sarax yu metti yi am di Moustapha Faye moo ko daan def ay saraxu 3 millions ay saraxu nag ay tonni mboq tonni dugub lépp moo ko daan def te dara taxul woon lu bëgg parti bi ak bëgg Ousmane ko kooku yelloon na bi ñu amee victoire au moins ñu woo ko sollicité ko wala ñu remercier ko wala bu PM duggee tubaab ñu ne ko kat am di Moustapha nañ ko jaajëfal. wala ñu woo am di sax mu ñëw saafoonte ak PM moo xam ko mais dafa mel ne yëf yi jëm ñu mel noonu doon jàppale doon ay grande tête dafa mel ne dañ leen làq Ousmane Sonko te loolu jaaxal na ma trop te li ma waxoon sama biir wax ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon di ñu xeex ñooñu tey nañ gën a yombal ñu gis Ousmane Sonko que ñun ñu fi newoon euh, ne ci combat porte combat bi ku ci mel ne sëñ Abdou Karim Mbacké borom Ule kooku dafa ñëwoon ci coalition bi ànd ak ñun di liggéey 35 voitures la daan jël par jour 35 oto la daan jël di sol carburant di nourrir les chauffeurs di leen jox prime chaque jour te ba léegi kenn woowu ko ne ko jaajëf walla merci loolu nag dafa bokk ci ñàkk ngor. ndax nit boo dee ànd ak moom di xeex benn mbir mu jël alalam di ci def wax dëgg yàlla xanaa jërëjëf wala au moins nga jël sa téléphone woo ko wala moom bu la wooyee mën laa jot loolu de rafetul rafetul rafetul na ci ci ci jëf yooyu ñoom ñu def ñu fayee leen loolu waaye amuñu accès lijjantiwuñ leen pare nañ ci ñoom mel ni mosu waa ANACIM bëri na ñi nga xamante ne dañ cay jàpp ku lim juum. commerçant marché occas bi kon ni ko Abdou Sow si la waxee ñëpp dañ cay jàpp entrepreneur yi dañ cay jàpp ku mel seriñ Serigne Mbacké Thiam bi ñuy nekk ci élection yi bi ñu ba ci campagne yi ay ndogu la togg yu bari ay sandis kenn xamul ni sandis yu toll ay mille sandis di wër ci patriote yi bureau de vote yi di leen ko jox ndax ñun dañoo jaayante woon nekk ci bureau de vote yi bépp bureau de vote bu am Touba dañu daan wër di ko sécuriser ñu woon sax ndogu Serigne Mbacké Thiam daan daan def loolu ci liggéey bi kon nag ñooñu waa parti bi bu ñu leen mënul woo jaajëfal leen man maa sama remerciement di ko def ci turu Ousmane Sonko patriote bu mag bi ndax Ousmane Sonko moo taxoon ñu def ko ñooñu ñu ngi leen di remercier di leen wax ne bu ñu découragé di leen wax ne li taxul ñu def ko muy Sénégal. Sénégal mi ngi fi te incha allahu rabbi dinañ ko liggéey ah ñi ngi jaale bu baax wéjuru baara baaraba baara ba bu mag la xeex na ci combat bi ba bakkanam des mi ngi dëkk boo ñëwee ba guy ziar premier kër deuxième kër yàlla dogal na bi mu faatoo jamono yooyu kenn ñamuta teew fenn man dama bàyyi sama yitte dam ci rob ba bi ñu ko robee ba pare ma ànd ak ñoom ñëw ci kër gi ci laa woo ku ñuy wax aadama Fall mi ngi may dégg ñu ànd man ak moom ak yeneen patriotes yi dajale suñu xaalis dam joxe ko ci turu parti bi joxe ko ci turu Cheikh Thioro kon ñun yàgg nañoo dox lu rafet ci parti bi yàgg nañoo liggéey pour bëgg moom ndamam waaye loolu lépp gis ko nit nag soo dee ànd ak moom di def lu di def lu rafet te gisu ko c'est normal nag nga téye sa loxo aj say garde ku mel ne moo Gueye ci ñi mujjee faatu ci événement bi ci la bokk dëkk usine glace moom it patriote bu mag la ca Colobane lañ ko dóoree bal mu faatu ñooñu ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ñaan yàlla li taxoon muy xeex ba faatu njariñ loolu wàcc ba ñëw ci ay juróom te sunu borom xaal leen àjjana ndax ñooñu dañoo faatu muy réew mi kon kenn waru leen a fàtte patriote yu mel noonu kenn waru leen a fàtte parce que li gën a seer nañ joxe muy seen bakkan li nga euh, li nga ma ñi dinaa ci mën a tontu parce que man du ma tontu lu ma xamut loolu yàlla dogal na bañ demee war ko def moom ñëwut moom moo woote te ñëwul ñëwul kam fa teg waxul nit ñi dara lu leer fi ñu accueillir rek moo gën a jaxasoo mel na géttu xar xanaa xar sax boo ko jëndee xar mu baax di ko yóbbu sa kër di nga ko dugal fukki mais ci benn naaj ci benn óol la ñu teg noonu affaire bi taw bi ñëw jaxasoo benn waaye taxaw fële affaire bi moo amul organisation waaw ñi bëgg a bindu ñi dëkk Touba nañ dem fee nangam ak nangam affaire bi jeex ku ne ñibbi loolu moo fa am loolu moo fa am respecté wuñu nit ñi nekkatuñu parti au pouvoir ngay def lu mel ni investiture au moins nga jël benn baas nit ñi ñëw toog ci mais plein air bi nga xam ne mu xiinee ñëpp a wàcc loolu mooy respecté wu ma nit ñi am naa li ma li ma bëggoon sama yoon newu ci ku fàttali la faloon nag di nga folleeku waaw loolu pour ñu ñàkk ko. day fekk ñun fañ tegoon suñu tànk ñu tegg ko rek parce que nit ñi kenn moomu leen li nga xamante ne moo ñu faloon muy dëgg gi ñu woote nañ ko bañ a bàyyi jub jubal jubanti la wax moo tax ñu yor bale bii bale ba mu set la wax loolu la leen Sénégalais yi bëggee nañ ci continuer lantinoor du tey diw ki fi ki nga xamante ne mooy la coordinateur liggéeyam ci Touba dafa des mënta yenu lépp na tas affaire yi koñ bu nekk gox bu nekk mu am ku mu ko jox ñu trouver solution téye base politique bi bu ñu ko defee dinañ dem bu ñu ko deful nag ñun ñëpp ñu li ñu liggéeyoon dañ dañ koy ñàkk. ak kàddu gu mujj gi mooy jaajëfal ñu fi teew di leen xamal ne amuma seen fay ndax àdduna nit bu daggee yitteem ñëw toog bu dee cinq minutes mënatoo koo fay maa ngi leen di jaajëfal di xamal ne li ngeen def tuutiwul ci man. li may tëjee nag mooy jub jubal jubbanti non à la trahison lépp lu ñu gis parewuñ de man de man man mbokk man parewu ma barki alxuraan parewu ma te du ma mës a pare li feek gisuma dëgg benn parti nag mënu ma jënd jarul kenn après di ma woo wala di ma daal frustré affaire yooyu xa lijjantuma seen xaalis damaa lekk ba suur maa ngi dund nice di sant sëñ Tuubaa li ma gis ci parti bi moo ma naqari moo tax ma def lii loolu la wasalaamaaleykum wa rahmatullah